mbaa nga pose ongle. ma daal yéen a génn. nga jëm. ah sama soxla. dinaa dem kañ ah lu may dee sa daal maa ngi jéggalu de. mel ni dafa daal. Hmm? kokkaleen ki nga mérito toogal. maa ngi koy sant yàlla bu baax moo tax mu toogal ñu ko. boo ci loo nekk yow. pare rek. <laughs> ah mami. def. Solange. yaa ngi ko. maa ngi ko moom. xam ne da ngaa pare fu ñu la ah, ba mu ah, neex lii laa bëgg man ci xale. mais yow pare nga de. ah noo bëgg ko def. xanaa <laughs> def nag. gis naa ci yow laa roy. Mm. sant ngeen te man da ko man en fait li ma neex ci yow mooy. xam mm. naa heure bu ma amee xew xala may doole. waaw mu ma doole woon lu may def nee na ñaanal féete day xañ loolu sax. maa féete ci yow ba mu neex. wala daal daal wax sëñ Segen daal moom. xarit amatul waaye xarit am na. <laughs> macha allah laax bi laax bi ngay bàyyi. ah sama xarit bi. li ci loo nekk. yaa ngi si jàmm. Mm. yow mooyoo. yàlla Igor Igor moom la a doy ah moom jaar yokku ñàkk jom nga allo oui ça va bien waaw maa ngi ci jàmm ba jàmm non maa ngi sama kër daf ma la hmm, ba daal léegi nii waa baax na maa ngi ñëw ok. waaye kii la doon mooy dem. dem. fan ngay dem. je pars. tu pars où. Igor la de. Igor kan lu mu def fii si digg dëkk bi da nga koo fàtte. ba ci suba bàyyi la. nii délaissé la. Solange maay kii dem. Igor góor la ci biir góor la. ah li ma soxla moom moo ma koy jox. xam nga man lan moo ma nakar ci yow sa job bu fekkoon da nga koo xóoyal naan sax ma am lu ma bëgg. nga ni bu ñëwee nga toog ak ñoom. kan mooy toog moom man mi yow. Sophie sa tànk bi day génn kër gi. Ah. waaw ma ñëw ci. man lan moo sama Sophie. Euh, ma ne saaf ma ngir yàlla gan yi bu ñëwee waxtaanee ak ñoom dégg nga. Sophie mi yéen la fii rek maa laay dem maa ngi ñëw. dégg nga li nga neexal nii tey. saaf ma yaay may ñëw loo bëgg. waaw moom Sophie lu muy def nii ba kañ. ah Sophie da xaw ma ci moom lu bari. yow naka nga mën a invité ay nit ñu débarqué war a ñëw keneen jóge fële nga ànd ak moom ne te dem. nees na ko yëfam la de. waa léegi yow nan la ñuy gérer cas bi fi mu nekk nii. gérer cas man mam mi ak kaaw sofi ba mu bàyyi kaag yow rek yow sofi sax ju mu trop xanaa bu mu duggee ci ay waxam te man góor laa attanu ma yéen nii ma toog rek naatu. ay man damay sonal sama bopp ndax yow gëm naa ni bu ma la si dugalee bu ñëwatee dina la toroxal ndax am moom amul jom amoo jom. sagam di nga ko mën a régler ndax sorante woo leen yéen ñaate danga waxante dëgg sa doomu ndey la waaye xamul déedéet waaye yow it contraire oui ak a yomb non. non. Hmm. mami man ngay boros yow ci kaawu Sophie ak yow temps bi may jël nii yëpp da jël sa défense tey loolu nga may wax. danga wax ñu waxante dëgg. waaw baax na. am na ñuy sonné yaa ko tàmbali. am na kuy sonné man te jiw ma. yow de tey laa doog a xam ne lépp lu la Sophie def rek danga koo mérité ndagati waaye yow wuy ma toogal maa la laajoon laajatuma la man mii borom dëj mën naa ko jooy. ah soo ah mën naa mu doon seen ganite. waaye rek ma jëm cee génn. ah te jël la baax. sa xarit géré kon sama nekku ci may toog nii Comment tu vas? nam naa la. maa ngi rek. ah mais ni nga may. waaw gis naa la yow tamit naka tey. je présente mon. non. du dégg. lii attends. mais loo mel ni yow. waaw attends yow yow lii yow mel lan la. lii yow kañ laa laaj foo xamee kii. kii et attendez loolu waxtaan fii ñëw na ñëw na ñëw na ñëw na kaay na ci biir. mais non. ay non non. salaamaaleykum. ça c'est bon. ça va. waaw moo def. dëgg naa la. maanaam yaa ngi ci jàmm maa ngi nii ñaar solo. yaa ngi ci jàmm. ça va bien. mami. waaw. bii jéem a kay bii ñu koy toog sama wet. kay waaw kooku fan laay toog. mais na mun naa la. yàlla xam nga yéen. waaye yéen. non lii du dëgg. waaw defal naa ko. waxoon leen lépp de. kon yéen ñaar da ngeen xamante. non. waxal ak kii yow. Ralph. ñoo bokkoon benn classe. yàgg maa nopp daf maa nopp ba dof nag. eh day sàcc film bi maa ngi moom petit ba gannaaw kii ñoo bokkoon classe ñoo daan defandoo lépp waaye nag wuy ma eh film bi muy wax sànq ba tey moom mii moo ko sànq. <laughs> wuy ma kaay ma mooy sama xarit ci kër kii sama doomu ndey kii mooy mami mooy sama xarit mooy sa moom mooy sama ginnaaw tool ci kër gi. sama nit Ralph euh, mami. Ralph a ngi nii sama xarit. mami naka mu. ça va bien Ralph. ba yaa ngi si jàmm. maa ngi sant yaa ngi def jongo ma nii de. xool ko rek kii dafa mboq benn xale. macha allah <laughs> mais waxuma lool. Ah. an sama yëf. sa yëf xoolal instant bi soreetul léegi mu yegg si xam naa fi nga toog daal léegi muy fekk la fi. mais instant bi moom toogal nga xaar te bàyyi ma kii ndax dama ko namoon. waaw ah may wan ni daal gis nga sa xarit. yii instant bi dama lay foon ni maa ngi ci lii. <laughs> mais à part ça nag. maa ngi nii sant yàlla. namoon naa. billaay maa ci àdduna. waaw gis nga ku ma waxoon maa ngi xew dinañ doj ba daje duma ko mës a gëm. mais lu yàgg. bilaay. naka booy temps sax eh, ma tàllal écarté ba caata njaay daal toog. da nga yaakaar ne ma du ma dugal bopp. ma <laughs> dugal bopp yow. Eh, a sa <laughs> sa prix bi rafet na trop. macha allah waaw gis nga de lii de madame Diouf fi jaar borom Alfayda mu nga nekk fee ci rond-point yoo. ah lii boo ko takk jarul yi. <laughs> bëgg naa loolu. <laughs> naaw. sa copine yàgg na de. mais fan la nekk. ay waay Moussa xaw de sànq bëgguma la ko wax mais bàjjenam moo ko fi woo benn appel bi urgence moo tax mu jékki-jékki rek daw dem. man foogoon naa ne dina ñëw bala nga fee jógee. Ah, jàmm la. sama bàjjen moom. Eh. xaalis rek lay wootee. Eh. turandoom la moo tax bu ko woowee rek xaalis da koy doyee. boo ko ok. bon nañ ko patienté ñu xaarale ko. Mhm. ba depuis tout ce temps yow fa nga nekkoon. ñu dëkk bi rek. bëgg nañ fàttali rek jamono école. monsieur Fall. non yow monsieur Fall daanu ba. Hmm. booy monsieur Diouf. xeetu dantalam dégg naa temps yi dafa yow mi yaa bëri woon moom loolu sama nature la. bàyyi leen seen ay yëf. Eh, bàyyi ñu dañuy que dinaa ko mën a xaar sama yëf. ah parce que mi ngi guddi te moom ñëwagul boobu ba léegi ça commence à faire nuit. Mhm. bon est-ce que duñu ko ba beneen yoon ñu def ko deuxième édition mooy daax. waaw baax na kon loo gis lu ne rek deuxième vague da ciy baax. waaw ah, ok léegi bon pour bañ euh, kii dañ ko commandé en ligne ñu indi ko ñu lekk. ah ñu bàyyi restaurant bi commande ñëw fii. est-ce que duñu def loolu. léegi kii mooy sama doomu ndey man lu mu wax loolu yow looloo wax. Hmm, man moom xam nga juufeen laa. man moom ginaar rek laa. Ah, yow kañ ngay arrêté si li nga mel. Ah, mais yow di buy gën a saf ginaar fukki junni yoon mais ak ginaar lépp ginaar la rek nañ ko laqul def ko dibi mu saf sap. yow lekk rek lay xoolal fa waaw na mën naa la de waa gis nga temps yi xam nga dama amul jot quoi waaw en euh, dama bëggoon benn euh, commande waaw comme li ma daan jël mais bii paa dangay ngay yokk benn ginaar waa nga livrel ma ko euh, Sacré-Cœur derrière boulangerie du boo ñëwee ba foofu rek dinaa la adresse bi daam bi dina woo dégg waaw boo ñëwee ba boulangerie jaune rek ok y' a pas xam nga kii dama ko namoon. te bu ñu demoon restaurant xam nga ni moos lii nii ñu mën a waxtaan fii duñ ko fa defee. yow kii dama la ko bëggoon jox. dafa mel ni yee ñaar mu ngi mel nii ngay dem màkk génn tasante kaabu foo jëm dafa mel ni xamante ngeen. ay waay te nga ko bañ a defal lu ko gënal. lu la gënal. <laughs> jaru nga may waaxu. waaw mi ngi guddi te xam nga xam foog ma eggale ay dossiers yoo xamante ni dama ko war a finaliser. mais nag mais xam mais xoolal. beneen yoon mooy daax su boobaa sax muy gën a neex sama yëf toogaal. waaw da ngeen dem kon. waaw ba ñëw dem booy. beneen yoon mooy daax. waaw mais yow xam nga nu def. danga may jox sa numéro. jëlal après ñu daal di pelloo ndax li ñu war a waxtaanee waruñu ko waxtaanee fii dugalal ma ko fii lan waa mami. Hmm. Ah, na rek. ay Solange. incha allah léegi euh, parce que sa moom moo may déposé. Ah sama doomu ndey Ralph. ah déposé. waaw. ci loolu. yi changé kon yow da ngaa yor nii instant bi bay liw ba yor voiture te waxoo ma ko. du ma ne sax oto voiture laa yor. non gannaaw ñu <laughs> bës bouton bu beneen yoon. waaw kon baax na <laughs> te kon ñu ngi dem booy. d'accord mu xool. Ralph merci au revoir. Thiar <laughs> da ngay gunge. mooy dama lay. Mhm. booy maa ngi jégalu de. bon gis nga ni mu demee xam nga on avait prévu ñu dem resto mais xam nga xale bi newu fii xam yàq na plan bi yëpp. no non yow su ma déggee. non problème non xam nga rek su ma sañoon vraiment nag xam nga fekk ko fii ñu xamante xam nga mu gën a neex waaw. ma gis leen lu ma gën a joŋoon. gis naa la. mooy Sonage. xale bi dama ko yàgg topp yàgg koo bëgg mooy toroxal. xoolteel yàlla suñu borom def. la gis li ma lay waxal booy lii daal mooy xewal. doxalal xale bi nga jël ko exploité ko dawal ko yow xam naa ne loolu du mat mais instant yi nii xolal gis naa ko yow la baar rek gisoo gisoo xanaa bi nga ko ne maa ngi déposé dafa tiit yow mel ni yaa lool ak loolu nga jël ko di dox ak moom ci pet di ko dox te yéen ñaar neexoo ngeen xam naa la te yow da nga bandi man xam naa ne danga koy koy doxaloo te xale bi xolal gis nga ni mu mel macha allah dafa xees. xam nga booy bi lii laa lay wax tout le temps. Mm-hmm. moo tax li ma la doon wax expliqué. Mm-hmm. bu mu ci que booy bi depuis bi mu xamee ba tey yoruma oto ay dafa changé. Mm-hmm. xam nga dafa mel ni xaw a désintéressé wu quoi mais bof yow comme ni ma la ko waxee yow géral ma loolu. mais petite euh, sœur bi gis naa ko xale boobu. mami mami. mais. musuma gis sama àdduna laago bu mel nii. waaye maam yi waxuma la sax miñan yu miñan ak mais dafa yaru dafa baax tout le temps saa yu mu ñëwee foofu daf xam waxtaan xam yow tu as vu sànq comment elle était avec moi sama man gis naa la nga koy xool. waaw dëgg na yàlla dund ko sotteeku lu ne xaj na ci. mooy te yàlla suñu borom lu mu si jàpp bi kenn mënu ci dara. te mami mii li ma gis ci moom bu moytul daal ma affiché endo dawal ko yi xam nga ñëw di mbàjjoo xale bi ñëw ba foofu noonu mais di ko jàppale ci pet nag en douceur parce que man ay affaire u laago yi nag handicap yi man ça me dérange pas quoi am tu xam nga jigéen la quoi xam nga nattu bu ko yàlla teg la mais elle a de la place dans la te kii li ma gisagum nii ci ku ko am am jabar. de mooy sama problème. Hmm. handicapé dama dëgg yàlla joomul kenn mais ak sa famille tamit loolu problème. booy. xam nu ñuy def man daal ñëw daal pour les champs gàddeel ma secret bi ñu waxtoon ci affaire u bien yeeg yëpp man de pour kaawu mami man xam naa dinaa ko gérer dinaa ko gérer ci pet te kenn du yëg Sofia du yëg daara nu mu demee te loolu man xam naa ne ku ko am am jabar dinaa ko jàppale loolu moom na t'en fais pas yow moom yow moom loo dugg la man maa ngi ca. mais ma dem waaw parce que achat yi nii dama war eggali mooy li ma war a finaliser dossier yi léegi demain a ñu àggale ko. bureau bureau suba suba bureau yi daax. ñoom yow DG. ok merci merci. ñoo faa nekk ok ok. rek nga yàgg. yow jàmm ok à demain ah. numéro incha ok ok ah.